dal leen ak jàmm Walf Quotidien xëy di ñu dégtal ñaari réew yi le muy France ak Maroc fala la njiitu réew mi Macky Sall di yeewoo ca Maroc gamu dëkk bees waaye nag fa muy liggéey di France ba tax na ñaari réew yi jot nañ ko dànkaafu ñaan nañ ko ci njekk mu maandu ci politiku Sénégal la waral nag ñu artu ko bokk na ci euh, téléphone gamu jël moom njiitu réew ma woon di Macky Sall euh, doon soñ ak euh, di ñaax Abdoulaye Sow ngir ñu fexe ba ñongalaat politiku APR ak Benno loolu nag la France ak Maroc ndax bëgguñu ko gàkkal seen digganteeg réewum Sénégal bëgg nañ daal mu sori politiku Sénégal moom njiit réew ma woon di euh, Macky Sall bu ñu sukkandikoo ci France ak euh, Maroc yéen a kaabi di mu ngi ñuy dégtal euh, li nga xamante ne nguurub Macky Sall ga woon tey jii kenn ci ministre yi di jor ngi ñu dénk wàllu économie sociale Alioune Dione yekk na leen lu mel ni xeme fàttali ne li ñu doon dupe financement daanaka loole yeggutoon ci askan wi dañ ko doon séddoo seen biir ak seen i militant bokk na ci di ci gën ca fi nga xamante ne mooy Bambey lim bu takku ci ay financement yoo xamante ne ab am politique moo ko fa doon amal eh, te buñ la joxee financement faw nga dëppaat ci moom ngir am loo ko ca jox eh, am na ci benn milliard goo xamante ne ba léegi kenn xamul fa mu féete waaye ñëwoon ca nguurub Macky Sall nañu xam ne bépp par gañu eh, daanaka jël ci alalu askan wi dañ ko gox ci nii wala boog ci nale jot na ñaawlu kaddu yi nga xamante ne moo tukkee ci Bah Diakhaté jëm ci premier ministre Ousmane Sonko n kaddu yooyee jaaduwul yoon de ca war a addu yoon sax war na cee addu ci googu lépp dossier ñanga nga su mandat de dépôt ba jaxate ak imam ndaw altine gi la ñu fas yéene jàkkaarloog euh, kanamu yoon yéen kaabi di l'info ne mbirum euh, ba jaxate ak imam daanaka mel na ni nag euh, dañ leen a fay seen bor mbu nguur gu bees bi yéen kaabi moo ñu ko yëggee li nga xamante ne jafe-jafe la woon te nguurug Macky Sall jotoon ko dund bi la yoon nag nguurug Bassirou Diomaye Faye mu ngi koy tambale dund mu ngi ci yéen kaabi di l'info yéen kaabi di las moom mu ngi ñuy dégtal Yacine Sall di jaru gi ñu denk wàllu bitim réew yéen a bi ne kenn xamatul doxalinam ci jamono ji ndax tàmbali naa yëngal wàllu diplomatie ndax ñu bari ci ay borom xam-xam tàmbali na euh, daanaka di leen faxas bokk na ci sax ñu ñu duppe ay contractuel te ne woon ci ambassade yi jot na leen a wóolu ñu ñib si daar daar fii ci euh, ndakaaru loole nag jur ñëgg-ñëgg xool euh, ci googule ministère am yéen a kaabi di las l'évidence ne ku munul bawo ku lu yàqu yow ndax dafa munul am déet wala boog ba xamagul fan a bi xeetu ñu dégtal jafe-jafe yi tënk euh, jëwriñ gi di Yacine Fall ci wàllub euh, diplomatie moom jëwriñ gi ñu dénk wàllub euh, bitim réew yéen ak bi di la quotidien njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye fas yéene delluwaat ca bitim réew ganub nemmeeku la fas yéene amal foofe ca Praia ca Cap Vert bëccëgu tey ji ëllëg incha allah ñu ngi koy séntu ca Guinée Conakry yéen ak bi di ñu fàttali ne ci diggante weeru juin ak novembre dina tukki ñetti yoon ca France moom njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diomaye Faye yéen vingt di 24 heures mu ngi ñuy dégtal Bassirou Diomaye Faye ndajëb waxtaan gam woote dialogue gañu ne daañ ko ci amal ci lu yàggatul ba tax na plateforme jubbanti jot na ko taxawal ngir fexe ba taataan xalaatu askan wi jëm ci nañu bëggee yoon doxe ci mim réew yéen kaabi di réew mi quotidien mangoog yëf ya mujjee na sotti jàpp nañ ko ñaar fukk fan ak juróom ñett euh, ci weeru mai gi ñu ne euh, bëccëgu ñu jagleel dialogue euh, national waaye nag daañ fa waxtaane mbirum justice nees mun a def ngir gën koo ñongal askan wi gis seen bopp yéen syndicat bi di réew mi quotidien doon lu soxal njiitu réew mi critique moom ne bëgg na cee taataan xalaatu askan wi kenn ku ne joxe sa xalaat jaaree ko ci plateforme ga ñu duppee jubbanti ñu wax naka la ñu bëggee yoon doxee ci mim réew mu ngi ci yéen a bi di euh, critique yéen a bi di sud quotidien ne googule national dina yegg si ci waxtoom fexe ba fexe ba yoon mun a méngoog euh, jamono yéen a bi ne dañ ko ndëppal bu keroogee waxtaan googee nag njiitu réew mi dina ko teewee ak ñu bari ci askan wi ko mun ta teewee mun nga jaar euh, plateforme jubbanti yéen kaabir yor-yor gi xëy duñu rapport cour des comptes jafe-jafe am ci euh, daanaka jiixi jaaxa am ci ndoxum Touba euh, ma ñu ne duñ ko fay yéen kaabir dikkaat na ci ci li nga xamante ne mooy administration bu Sénégal la mu jot a jëfandikoo ci wàllum ndox buñ ko xaymaa ci njëg euh, toll na ci ñaar fukki milliards yéen kaay geneen di turbine mu ngi ñu dégtal ne yokkute am na ci njëgu woyofal gi lu mu déggal la ci biir yéen nga xamante mooy turbine Eh, ca la tàmbale eh, yokku yéen a bi di eh, turbine moo ñu ko yëggee yéen a bi di le mandat mu ngi ñuy dégtal wàllu koomub Sénégal ana lu ñu moomal suñu bopp ci mim réew lu bari dañ koy jéegaane ca bitim réew dina jafe lool ñu mun te suqali réewum Sénégal yéen a bi di le soleil mu ngi ñu dégtal agropole sud Ziguinchor Kolda ak Sédhiou liggéey ba bu doonoon téeméer daanaka juróom fukk yaak juróom ya yëpp mat na ci jamono ji gannaaw tukkib nemmeeku goo xamante ne jawriñ gi def na ko fa mu ngi ci yéen a bi di le soleil Eh, di ñu dégtal yan gaynde la Aliou Cissé fas yéene eh, tànn ci eh, match gi war a dox ci diggante Sénégal ak RDC Mauritanie Sénégal wàllu attaque bi ñan lay fas yéene samp ci attaque bu Sénégal doon lu yéen kaay bi stade bëgg a xam daañu ci gindeeku ci yor-yoru tey jii yem ak fu ñu jeexale xëtu yéen kaay yi ci baatu askan wi daañu ci dikkaat na mu gën yato